Euh, révision euh, amuñu. Ah, am nañu lu ñuy négocier moo tax ñu dem mais ka euh, procès lu muy négocier. kan procès lu mu war a négocier. ah yow lay laaj. yow mi di sympathisant. non mais ah, mais procès bu bu demulee c'est que amul lu muy négocier. Hmm. lan lay négocier. lan lay négocier quand tu as toute la population qui est derrière toi. Ah, ah bon bon baromètre ñu arrêté la en 2021 man tëj nañ moom tëjaguñ ko ba léegi <laughs> yow tëj nañ la moom tëjaguñ ko ah si moom ñam na quelques jours de garde à vue quelques jours <laughs> ah yow tamit 4 jours de garde à vue kese nga am de bàyyi nañ la vous êtes bien chanceux 4 <laughs> jours de garde à vue rek nga am ñu fanaan pété dans un cabinet sur un matelas donc yow li nga daj moom dajagu ko sama liberté benn heure sax duma ko may kenn ah pare gu ñu de affaire lu aussi bi ça va monter partout de lu aussi boobu va monter partout gis yi dina dossier bi dina dem ba Genève dina dem ba fu mu war a dem. doo ko bàyyi. lu eh, ma koy bàyyi ku nekk sa kër maam di toppatoo ay nag di xar ñu ne la da nga daw benn convocation lañ ma envoyé procureur ne trois convocations lañ ma envoyé pendant trois ko prouvé. benn convocation lañ jot les gens sont partis on m'a dit que problème administratif ma ne j'ai un médecin bu topp ci man man maa ngi Fuuta à six cent kilomètres convocation bi dañu dañu dolli beneen tour ci suuf kooku dem présenté wu. kooku bu ñu ne la da nga daw tontuwul ay ay convocation kooku day na war de. donc yow yàpp nga ne Ousmane Sonko amul lu muy négocier moo tax demul ci dialogue bi. ah mais gisuma gisuma lu muy négocier xanaa nit bëgg a négocier moom plutôt. parce que dafa dem ba nee na la wam mbaa ngor ñu tëj fii dama dem sax ma erreur la di ñu mënoo añ baa ngi reer baa ngi ñëw léegi mën naa loon dem di leen faj euh, dans les prisons la reer jot ma ne aw ah, xale yi lu ñuy reere ñu ne <laughs> kër Sonko ñu ngi leen di indil reer xaw ma seen confusion wala xaw ma lan mais tu vois euh, il est partout il est partout te noonu lañ bëggoon a gis nag Macky continuer noonu Macky sama village bu ndaw boobu aram dem na ba foofu village boobu euh, doyen bi di Dioum nee na c'est à deux quatre-vingts kilomètres de <laughs> Saint-Louis moom dem na ba foofu kii ko toggal reer bu naa la ko indil fii euh, nga waxtaan ak moom donc euh, <laughs> muy noonu bu fekkee nag day dem les kii di pouvoir wër la ba xamatuloo fi nga demoon xamatuloo ñi nga war a liggéey xaalis bi ñu waroon dugal ci agriculture mu am coow xaalis bi ñu waroon dugal ci éducation am coow euh, ngay defaral gendarmerie benn euh, village te dem ba di leen dóor parce que euh, bëgguñu nee nañu bëgguñu gendarmerie bi c'est des fekk si se passent devant vous tout ça nag c'est ça se comptabilise n'est-ce pas wala. <laughs> man yow laay dégg. Ah, du ñu ko comptabiliser nga dégg population yëpp du ñu comptabiliser du ñu comptabiliser de du ñu comptabiliser et les élections c'est c'est un décompte.